maire l'éminent par force sans forcer de Guédiawaye de Guédiawaye mi ngi lay dalal di la si yaas tey moo fi nga laal moo gis nga moo Guédiawaye laa bokk gis nga lii rek a tax nag bëri wax dëgg dëgg dëgg nga laal ne ko bëri wax ngi moo ko waral le grand l'éminent le grand l'éminent journaliste Alaaji Ibrahim Diadji Touré aimé adulé yaa na sa jàmm yaa ngi lay bëgg de Birahim. xaw ma la ko yaa na sa jàmm yaa na ah, sa jàmm yaa ngi. ah yaa ñu téye de nekk nii de. yàgg ngi la grand-mère day. ñett yi waaye yaas tey bu ñëwulee affaire beneen affaire lay. comme ay yàbbi. su ma foofa na fekkee fee ba ne ma tey de yaas ñëwul xoolal sama yaram même ni may waxee xoolal loo daw daw daw daw daw daw daw daw daw du tax ñu fàtte pétrole bi suul gaz du ko teree xeeñ. troisième mandat du ko fi tere. boo ñëwulee nii. Ah. ni ma koy waxee day day. day bu ma ñëwee nag bu ma ñëwee nag. boo ñëwee noonu laa koy waxee. bu ma ñëwee. waaw ah, bu ñu demee ñëw na. non dafa suufee woon baat bi. mais gis nga yëkkati. dama naan waaw ak loo dëgër bopp dëgër bopp dëgër bopp tout en pensant que yaas ñëw suñ pétrole bi mënuñ koo fàtte suñu gaz bi ko mais bu ma déggee ni ñëw nga non Macky loo daw daw daw daw daw koo fàtte parce que suul gaz du ko teree xeet troisième. léegi nag man fii nga lay provoquer. maam Seydi provocation lay def. traduction bi la ne. xaw ma noppi ñoo am jafe-jafe. traduction bi la. xaw ma lan la. lii na xëj na limi na. kee nee na yi ak maam ñoo ko wax de man du samay kàddu. ñoo leen nekkul di jur góot man waxuma ko de. Eh, nekkul di. jur góot. man waxuma ko de man moom gros mooy moom vraiment. man waxuma ko de. gros mooy moom casque bi lay xam naa moom la doon defaraat. man moom surtout écouteur bi la doon defaraat. gros moomu. yow loo sekk ak moom wax ko les mots du pays. pauvre M A du pays. lii mitti daal ci réew mi lañ koy wax ak concam mu teg ci ay këyit. ni ko tegi. yaram yaram màggat de. ana Omar. Omar dina ñëw ci kanam. Aliou euh, Siré. Omar ah Omar inondation monsieur inondation dina ñëw. ci dogat dogat ñu ngi ci inondation. yow nag dafa dafa mel nga bëgg Omar de ah. yaas. non Omar déedéet Omar Omar bi Omar de Mame Mbaye rek laa ko rusee. ndeysaan rusee ko de. yow rek laa ko rusee ndax li ngeen bokk département. ay. mënoon na. Omar. waaw yow eh jëlal yaas jëlal yaas. Omar Rangue. lii jël ko direct. waa léegi jëlal yaas ma laaj la ñaari question waaw jëlal yaas nga ne Omar. mooy. dogat dogat. Omar. nga ne Omar. naa la yaa nga sànq mooy bàyyi leen Omar. nga ne ma ne dogat dogatee. te Omar. Omar diw. Milenu. non yaa yaa si yow léegi yaa Omar ba ci na dem Milenu. Ah, ah, jabar ji de boo ko gisee moo la lool laas la de léegi nga ne Omar. <laughs> mbënd mi. ola. pompe. ola. hydrocureur. ola. manquement. ah. bu dee ki tàggu Omar. la ma waaj a doon waxoon naan ma yàq nga léegi mën soo jóg waaye yaas. sa gars yi wër naa ngi lay yàq non génne naa ci Ibrahima Touré waaye la grand mère ma mbay foofa naa ngi lay yàq de. yàq yaa fi énuméré lii yëpp Omar. te man lii xaw ma ko woon ci Omar. oui ma Ahmed nel Omar foog ñu invité ko nag. waaw foog mu ñëw si matinal mais nag buy ma bu mu ñëw si matinal ñu def comme nañ defoon kañ fi invité wu. Abdou Mbow waaw Abdou Mbow moom dootu fi ñëw. mais yow Abdou Mbow. waa matinal nee ñoom ñoo la bëgg a invité. 7h30 bi en France nga toog ñu laal la toog nii ñu wax ak moom. en attendant la grand mère di ñëw mais dañuy waxtaan rek bu soobee yàlla 7h30 nga doxal jour boobu 50 laay ñëw. waaw demaat 5h euh, 7h30 ba ba dégg nga man dix minutes rek lay laal parce que du bokk ci question yi waa matinal nee nañ pour nga ñëw. ñu jàkkaarloog yow defanteeg yow yu baax Omar inondé. Omar di nga ñëw. nga ñëw ci mbégte fajar gi. oui nga ni. Omar ñu ngi lay xaar dégg nga. saa ah, kay gay njooro. ci kanam gu sedd gi. Omar. xaw ma ko muy demal élection mais am na lu muy demee dina la gagné de li nga am bës ci at ñi xam nga politique dañ naan ñuy wax ci yow rek. en bien comme en mal waaye li ñu wax ci yow waaye Omar waxal ci ndox mi ah léegi. waaw oh, eh, oh eh, Omar demul woon ci ndox mi démb. ah fan la. ah bon Omar daal jàmm ah. Omar daal jël na ndox mi rek léegi moom ko. kii la ñu war a def ministre poto poto patapata. terminé yéen a kaay. ministre la. poto poto patapata. El Hadj Diouf la ko Ablaye Wade defu. bienvenue à poto poto. lak artificiel lak lak xaw ma la nag la nag poto poto. ndox yi taa termine yéen a kaay ñëw ak ñun ci sonn nañu. jahannama. jahannama pire l'enfer moom la nit ñi dund. non mais Macky est-ce que xam na li nit ñi dund. cin bi baax la de. Ah? bi baax. mais waaye yéen est-ce que gis ngeen loolu booy di def taa yi ci ci ci réseaux sociaux yi 2012 euh, li ceeb bi doon jar diw bi meew mi yàpp bi. waa eh yow eh Macky mii est-ce que li daloon Abdou Diouf dalu ko. mu yaakaar ne gars yi sunguf meew juróom amul ci réew mi waa Macky yow est-ce que yëg nga ni journal maay wax ne te loolu mooy dëgg de est-ce que yëg nga ni saako ceeb bi yokku na. waa président est-ce que yëg nga ni meew mi yokku na. waaye est-ce que président Macky mii yëg na ne suukar si waxuma sax manqué bi mais yokk na merci pour les cœurs <laughs> je t'aime moi aussi mais est-ce que Macky mii yëg na ni ndawal li yokku na yaas waaye Macky mii ce que yëg na ma ne ganaar yokku na yaas est-ce que Macky yëg na ne suppame yokku na ak batan seeg jaxatu waaw Macky mii est-ce que yëg na ne nen yokku na nen amatul poobar laxasu poobar boo a yokku. mais kon netetu tamit yokku na. netetu yokku solo yaas te nen baxal ak nen toj mu tas yokku na. Eh. si. non gi sax yokku na. mais Macky est ce que yëg na ni Tamba Dieng yokku na. Hmm. nawe gi. mais Macky est ce que yëg nga nawe mi nga xam ne dañ ko doon tuutil sax danañ gunge gars yi kenn du ko lekk yëg nga ne yokku na. tamxarit ñu bëri def ñu yomb. waaye yow est ce que kii yomb amuloon ci tamxarit bi Macky est ce que yëg nga ne yokku na. laalo sax yokku na. <laughs> yaas nee na même laalo yokk na. waa léegi lu fi yomb. bisaab bëgg diwtiir tojkaani pàccal ni ngoom Macky est ce yokk na. nee ko kanja yokku na. kanja yokk na non ñoom bëgguñ koy tudd kanja ah lu waaw ah, kanja dafa am ñoo xam ne dañ koo jël dëkkalee ko seen bopp dégg <laughs> démb Pikine Nord xeex a am ci diggante waa kër Thierno Alassane Sall République ak waa APR cay transhumants yi hmm. léegi ne ñooy abrité xeex yi Amadou Diarra dégg moo tax chef de protocole bi dañ koo garraw yi sa waa kër ne leen ñu bàyyi xeex débat d'idées la lañu woote boo leen yàqee réew mi nañ leen ko wax wal fajiri ñëw ak ñun ci gis nga lay weñ gaa nga demee ca mbànjaxaan ka hmm? nee na là où le bas blesse candidature indépendante yi ci élection locale yi dafa am foo xam ne dañ fa néew doole am fa foo xam ne dañ fay foor fi ñuy néew doole nag ci li ñu bëri jàpp mooy caution bi fukki million ak juróom ci benn waa joo xam ne mouvement la defar biir koñam rek wala département am ñu ne ko boo laalee commune quinze millions la boo laalee ville trente millions journal bi ne gis nga obstacle bu rëy baa ngi nii ci candidat indépendant yi waaye fan lañ nar a fooree xam nga mooy fan le mode de scrutin au suffrage universel direct da ngay teg Fofana teg Ahmed ne yéen waa géej waaye ana ku leen gënal tey Youssou kooku alaaj da ñëw alaaj tey teel nga ñëw di daa bëgg mu ñëw taxaw alaaji mu ni. alaaji kaay. Hmm, alaaji kaay ah. rek moom dafa bëri. waaw kaay kaay. waaw waaw jaru da koy yàq sax. waaye wax nga dëgg alaaji xaaral xaaral gunge na. Mamadou décalage bu baax. ah. ah. moo am melokaanu boppam dama am fulle ku ma wokk ma wokk la rek. ku la xuri ko xuri ko. ki fi ñëwoon suba teel. waaw waaw waaw waaw. wax nga dëgg. mooy bangi bangi ci kaw nit dootu fi ñëw. ñu doon invité. fii kenn dootu fi ñëw moom Macky sax du fi loolu moo tax a tiit bu tax may yëg heure bi ah liñ doon wax noonu. damaa wàcce eh, dañ doon fo. damaa ah, wàcce dañ ko def li ñu defoon ki fi ñëwoon de ki fi ñëwoon a indaale wu melokaanam. waaw dëgg la moom. waaw ok c'est bon waaye ki fi ñëwoon moom la ana lum la def nag. non c'est bon c'est moo ne def la dara de. nuyuma nuyuma la donc délai moom léegi personnel waa. Yaas ma yeggali s'il vous plaît. Yaas tu as deux points de moins pour le prochain ah ah non. ba pare eh, te tonton di tax. lan laa def. ndeke da nga defoon faute de frappe sànq gisuma ko woon machine bi la. classe. waaw clavier bi la. Abdou Mbow kenn defu ko fi dara moo fi ñëw ak melokaanu boppam. <laughs> ay. ñëw ak melokaanu boppam ndax Abdou Mbow ñëpp xam nañ ni mel. ah ruube kat <laughs> dañ ruube. di di di di jaxase bëgg a ñëw fii bëgg bàyyi noonu mu sedd. box ah. boobu gis nga journal bi nee na. ci jamono joo xam ni opposition bee ngi tas ba ni tasaar. yor ay coalition fu ne. ci jamono jooju la Macky woote démb. conférence des leaders ki ma invité tey seen jotaay bi ma koy woo la may wax ne ma suba dina baax parce que tey punkal mee woote. ka ma invité seen jotaay ci punkal yooyu la bokk bàyyi leen ma ngeen gis ko rek di ngeen ko gis dégg Macky Sall xam na lan la wax gars yi dem bi waaye balaa dara xew la xewoon ca député gaa yi defalaat nañ ko ko te waxoon naa leen ko jox nañ ko carte blanche nee nañ ko investiral tànnal say tëdd liste say maire. ah dana tànn nag après wan leen waaye xam nga ne moom moos lu mu wax loolu la ñëpp di wax kon gars yi caddi caddi nañ xaar tonton mooy tànn boo benn ñaar ne te nee na critère yu ànd ak rigueur fulla yu objectif. boole comme ni nga def revue de presse. kay. profil bi day baax daal oui fulla ak fayda ma ma ki nee na. tamante dëmm gi opposition bi nekk. nee na ñoom nañ ko daw. nañu nañu nañu nañu wóoluwante. loolu moo yàq opposition bi ku nekk day xool moroomam ne ma kee ko yónni. ku nekk ngay xool keneen ka ne ko tekki woo dara. Macky Sall nee na nu devons nous faire confiance. wóoluwante. Hmm. solidarité am seen biir mooy indi ndam. Hissène Habré ngi nee ci kaw. tey lañ koy denc waaye am na benn journal boo xam ne bind na ci leneen danañ ci dellu si waat di àllaaji dégg dégg Sud Quotidien ñëw ak ci l'impossible entente manul ne <laughs> c'est que gis nga sénégalais ñoo bëgg nii di rafetal rek mais opposition mënuñoo àndandoo nombre de partis ne ci réew mi coalition nekk ci opposition bi yëpp mënuñoo ànd mais comme que waa pouvoir ci boppam mooy am ay échappé ñoo xam ne dañuy dañuy rëcc defar ay liste waxantuma ak ñoo xam ne nag ñoom ñii ñu ngi nii position ñii ñu ngi nii mm. Momar Diong journaliste analyste politique mu ne mais toute l'opposition ne peut pas se retrouver dans un seul cadre loolu mënul ne de loolu gis nga xastante yii ñuy xastante ci entre militants ci réseaux sociaux nañ ko bàyyi loolu mënul ne unanimité mënul ne waaye comme que yàlla mi ñu sàkk ci boppam moo amul cent pour cent ñëpp ne ko yawa mm. loolu de oh! le soleil yéen kaay ñëw ak ñi canalisation ñii ni incivisme boo xam ni yaas mm. ñenn ñi dañuy jël ay butéelu xar ak bopp xar sànni ci biir. loolu moom naka jeex amul xaye di weesu waaye am na ñoo xam ne dañuy def li gën a dee. ñoo xam ne dañ ciy fekk nii nag sàcc ko daw ak moom. waaw loolu tamit waaw ñaar ñooñu kan kan moo gën a yées. c'est loolu la classe oui. sàccakatu kubéen bi xam nga. oui monsieur le maire. sàccakatu kubéen. kubéen foofu. ñu fay déverser mbalit mi. bopp xar. civisme réew mi ko xool ko incivisme ñaari passager yoo xam ni ab chauffeur lañ jàpp fële ca garage Colobane dóor ko ba toj boobu la la wax dóor la ko tiñee ñëw a ci fanweeri milliard pour wutal gone yi ay tëni Cheikh Bamba Dièye benn question écrite la dóor ministre éducation nationale dégg lan mooy njariñu lii fanweeri milliard l'observateur ñëw ak ñun ci gis nga coowal jëy naa gi na ko nit ña foogee woo ndeke moo gën a garaaw ah bon waaw mu ne day tuumaal faru rappeur am bi ne da doon génn ak yeneen i xale yi jigéen bokk na ca beneen actrice hmm? dégg nga xale bi démb fi ñu ko téye woon dañ ko fa jëlee yóbbu ko ci ginnaaw kanaal bi ci ci ci ci foire ndeke fa la sànni woon portable yi ah waaw <laughs> xale bee jëloon décision pour yàq waa ji une opération de destruction dégg nga nee na ñooñu nga xamante ni nii faro yi doon na bëggante ñoom bokk na actrice yooyu bokk na ci Marichou. Eh? ah. Hmm. carton ce que duñ génn. dafa dafa bàyyi pot. ani pot. Ah. dafa bàyyi pot la yéen a kaay ñëwoon ci kenn du dugal. du ko nangu de. wuy